ayca bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbaliwaat na bàyyi jiili Père Birahim mbokk yi bu ngeen gisee fii ñu taxaw nga xam ne ñu ngi ci télé bi fas yéene leen indil komba Père décortiquer leen ko ñu leen di nuyu rek fépp fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safoo wasaare làmb ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax gis nañ encouragement yi gis nañ ñaan yi lépp loo xamante ne ñaan ngeen ko rek yàlla na ko suñu borom boole defal ko ci réew mi ak mboolem réewu jullit gannaaw lool damay nuyu père bàyyi ko mu nuyoo su ko defee ñu wéyal waxtaan père maa ngi lay nuyu bu baax. waaw ah, jërëjëf maa ngi wax salaamaaleykum wa rahmatulah bisimilah rahmaani rahim. Mm. rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu mm. maa ngi nuyu mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi saboo bi tudd Wassare Lamb. Mm-hmm. di leen ñaanal gudd fan di leen ñaanal wér. di leen ñaanal yàlla mosu leen ci mbas mi ne ci monde bi yëpp nag. jullit yeefa ñëpp daal képp ku rek maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla ko teggi ko fi jëlee ko fi. ba sport yëpp doxaat na mu meloon. wax dëgg yàlla sport fi yëpp nag. képp kuy ci la ak ku nekk la nga yëngu daal maa ngi lay ñaanal yàlla defal la ci jàmm. defal la sutura mucc la ci musiba yi. di ñaan sama kàddu yàlla na fekk la yéen ñëpp ci jàmm nag. ak poche yi def dara comme ni ko daan waxee ah, ah, poche yi def dara comme ni ko Saalin Sall sama sëriñ di waxee dégg nga yàlla nañ ko defee noonu mu gën a nekk noonu rek ah, parce que jiiri poche bi bu desee yaakaar buy dugg da nga koy xam buy dugg si ka bu bureau bi rek ci nga xam ne jiiri tey poche bi dis na waaye waaw waaye bu <laughs> bu xaaj bariwul rek da ngay ñëw rek mu fas kare waaye jiiri qu'est-ce qu'il y a waaw ah, voilà waaw ah, dina ñëw dina ñëw dina ñëw <laughs> eh, jiiri ñu ngi nuyu ñëpp nag waaw <laughs> mm-hmm. waaw di nuyu safo site bi yëpp wax dëgg yàlla mm-hmm. gis nañu encouragement bi mm-hmm. wax dëgg yàlla gis nañu analyse yi apprécier bi ngeen def ci suñu waxtaan it gis nañ ko wax dëgg yàlla. Mm-hmm. Ah, waaye dara lool tamit baax na. Mm-hmm. parce que gis critique yi tamit am ku am critique euh, ku la tàgg rek moo la. critiqué waaw ah, parce que ki lay tàgg tamit am na droit bu gisee lu ko jaaxal nga mm-hmm. d' ma ci lii. loolu ak àddina ànd lépp du ja lépp jagul. àddina. taalanda ak sama benn daan wax ndeysaan àddina lépp du ko jag. ndeysaan àddina lépp jagul. loolu la loolu ak àddina ànd quoi. wallaahi mm, kon nag. Eh, dañuy wax su suñu xam-xam fi mu toll rek la ñuy waxee. Mm-hmm. keneen ko ñëpp xam-xam bu ñu ñëwee yokk tamit ñu gën ko tàllal loxo rek. dëgg la. Mm-hmm. Eh, père ma lay jaajëfalaat bu baax a baax a mm-hmm. baax ndax. keroog du ñu indi combat boo xam ne lutte traditionnelle la. mu doxoon ci diggante Reug Reug ak Sele mhm. mu doon combat boo xamante ni gis nañ fa technique bu baree bëri. dëgg la dëgg la gis nañ fa xarañte gis nañ fa bëree. Mhm. ba waral tey ñu delluwaat foofu. Mhm. jël ñaari combat yoo xamante ni combat bu neex la. mu doxoon ci diggante Serigne Ndiaye. ak ki nga xamante ni mooy. Euh, Euh, franc. ñoom ñaar ñu nekk ñaari mbër yoo xamante ne ay champion lañ. Euh, ñu dajawaat ci bëre simple bi bi mooy seen deuxième daje boo xamante ne ci saison bii di deux mille euh, deux mille dix neuf mille vingt bi daje nañ ci ñoom ñaar. léegi gannaaw loolu père dañuy bàyyi komba bi nga décortiquer ko. indi ñu combat bi ñu waxtaan ci. xool technique yi xale yi génnee. Hmm. père Aïcha ana Serigne Ndiaye. waaw Serigne Ndiaye moo ñu woon ginnaaw nii. Hmm. Franc moo jàkkaarloog ñun nii quoi. Hmm. waaw ñoom ñaar ñëpp nag kenn ku ne pied droit nga ñaari pied lañu waaye foofu dinaa fi taxaw gestu tuuti wax am lu ma fi wax. Mm-hmm. ci ñoom ñaar xam nga ak mbër. des fois di nga xool ñaari talent xool xam ne ñii bu ñu góorgóorloo yëngu ci làmb dina ci am dara. dëgg la di nga ci am nag ñoo xam ne da nga leen di xool xam ne ñii day. dañ koo mm-hmm. bëgg di ko fooy rek waaye pour ñu am ci dara dina jafe. dëgg la wërsëg nag fu nekk lay jógee. dëgg la waaye di nga xool xam ne tam ne ñii. wax dëgg yàlla làmb dañ ciy forcé waaye pour ñu yàgg ca day jafe. dëgg la parce que ci da dina feeñ ci dayoo ba. Mm-hmm. dina feeñ ci euh, xam-xam ba. Mm-hmm. dina feeñ ci ci ci mën-mën bi. Mm-hmm. waaw parce que mën-mën daf ci am solo. dëgg la booy def dara day fekk nga mën ko. dëgg la waaw. Euh, bon loolu tamit daf ci am solo. dëgg la nag yàlla def na ñoom ñoo ñooy xale yoo xam ne boo leen gisee ci dayoo rek. ak ni ñu jubal rek jug jubal ci mbapat yi. parce que mbapat day yokk nit. dëgg la parce que mooy mooy école bi. yu bari yoo mënta jàng ci écrit bi ah. mënoo koo jàng ci booru géej gi te mhm. eh, mbappat mi koy jàngee di bokk ci tournoi yi ñu di di daanu di daanu ba xëy nekk final mhm. nga di ko def ay at loolu bu xëy rek wow dëgg xëy rek wow koo nga mën a bëre mhm. gis nga rëg-rëg ak Sélé gis nga keroog bëre bu rëy bi ñu bëre te am na yeneen xale yu nekk ci seen ginnaaw yoo xam ne ñoom it ñu ngi war ñii ñaar tamit ñaari avenir lañ ci làmb ji parce waaye nag gis su fekkee ne ñoom li bëri dóor bii ñu bëri simple bi ñu bëri nii mm-hmm. su fekkee bëgg nañ koo améliorer ci bëri dóor bi mm-hmm. gën góor cee lu amaat ci tour comme li ñu amee ci bëri simple bi nii mm-hmm. foog ñu am tour ñu yokk ñoom ñaar ku ci nekk am na lu mu war a yokk am na lu war a jàng waaw lan lañ war a yokk très bien ça question bi neex na ma mooy tey kii pied droit la man a Serigne Ndiaye pied droit teg waaye war naa jàng gauche bi su ko neexee taxawee gauche di jam gauche di jëli di songe gauche dégg nga comme pied droit bi na ko mën na ci mu mën a direct droite di jëlee droite wala bu ko neexee bu sonnee mu teg gauche léewtoo dagg taxawaay bi di jam arrêté gauche am di daw di jëli ci gauche bi mhm. am jàng la rek dëgg la suñ ko jàngalee day ñëw mhm. waaye fekkee ne benn côté bi rek nga mën nañ koo ni ba ban ko bàyyi bëri kon kon li ngay jàng ba tey yokku woo mhm. loolu ma wax nag li ma wax nag moo franc ñoo ko bokk franc droite bi la droite lay teg di jëm droite di daw di jëli waaye su nekkee entraînement nag war naa gën a jàng gauche bi ba nga xam ne su tegee pied gauche tamit mën a jëm arrêté gauche ak jëli dëgg la parce que ponkal xajul sànq xoola ñuy ñaar kuñ ci mm-hmm. mën a song rek dañuy desee mën a song nag mm-hmm. parce que song ba tey song dañuy yotu ba jàppante rek xaw ma bari simple bi la wala déet mm-hmm. parce que ni ñuy bëri simple bu doon dóor duñ ko def waaye dama la bëgg a xamal ne song moom ku ci ko ci man kii xaj ñoom ñaar ñi xaju ci yeelu kenn déedéet ayca te loolu conseil moo leen jox la pour ñu gën a yokk seen xam-xam dëgg la tekkiwul ne nag mënuñu nag waaye nag xam-xam da nga koy yokk da nga koy yokk dëgg la parce man lépp yombul mm. ku hmm. mën lépp amul fenn sax dëgg la alkamal lii la yàlla rek a mat hmm. kon waaye nag li nga mënul nga di ko jàng dina tax nga am gën a am xam-xam dëgg la waaw ay ci ñu dem ci combat bi ñu ngi ñu ngi léewtoo waaw ñu ngi léewtoo ñoom ñaar ñëpp waaw hmm. ah. père taxawaay bi taxawaay bi teel ma noonu taxawaay taxawaay bi boo gisee gis nga euh, Serigne Ndiaye deux bi xam nga moo ñu woon ginnaaw waaw mais gis nga tànk bi tànk bi dinaa la wax leen ci fenn leen ci taxawaay waaw gis nga taxawaay saa yoo tegee tax taxaw nii jub nii taxaw di léewtoo waaw taxawoo da ngaa tegu. ngaa tegu. waaw parce que benn baaraam mën na la yóbbu benn baaraam mën na yóbbu mais bu fekkee da ngaa wàcc. Mm-hmm. fléchir tànk yi toog ci tànk yi. Mm-hmm. toujours léegi doole ji bu dee cent fii am na cinquante fii am na cinquante. Mm-hmm. bu dee da nga ne nii nag bu dee da ngaa ne nii. tànk bee teguwul. gis nga ko waaw tànk bee. teguwul daa taali xaaral ma sumee daal yi di ngeen gën a gis yéen yi seetaan. waaw su may léewtoo daal ne nii. waaw xoolal xala tànk bi teguwul. teguwul de déedéet. est-ce que nit mën naa taxaw benn tànk di am doole. déedéet père. kon lépp doole ji yëpp fii la ne. ci kanam la nekk dëgg la waaw. bu fekkee mm. dama ne nii. Mm-hmm. taxaw si gi ne nii. Mm-hmm. léegi doole ji yëpp fii la ne. ci ginnaaw mais tànk bële. bi dara newu fi dafa tegu rek. taxaw waaw moo tax doole da nga koy da ngay tàmm. Mm-hmm. séddale sa doole mu tekk sa ñaari tànk. fu nekk jël cinquante waaw mooy nga fléchir ñaari jambe yi. dégg nga xam ni ngay taxawee. dëgg la loolu am njàng la. loolu da nga koy jàng da ngay jàng ba noo mën a déplacer rek sa ñaari tànk day am doole. dëgg la waaye benn bu amee doole benn bi amul doole rek taxawoo. moo tax fi ngay daanoo fi ngay daanoo pour nga xam ko day day jafe. dëgg la waaw. Mhm. moo tax gis nga tey Serigne njaay bi gis nga ko dégg nga def na gis nga ci léewtoo bi bi ñoom ñaar ñëpp ñoo yem ci taxawaay bi. dëgg la mais ci biir léewtoo bi ñu dem. ay ci ñu dem. waaw ñu. Euh, et fii dafa mel ni gis nga fi teel teel teel voilà gis nga teel. gis nga fii xam nga ñoom ñaar dañoo téyante. waaw xam nga ñoom ñaar seen ñaar loxo dañoo téyente mhm. kon fii de du fi am. ah munu fee waaw parce que fiile boo bëggee fiile kenn ki pour mën ko fiile téew daw tibb ko da ngay fexe ba yow téye ko mu bañ laa téye. moom mu bañ laa téye. waaye mais bu fekkee moom moo da ngeen di téyante. boo ko mm. fiilee bu téye sa loxo doo am dara. déedéet benn loxo ba la nga koy fiile mu fiile mais dara dala téye doo am dara. Mm, mm. fexe nag ba bàyyi fii fexe ba téye ci ci bi. dëgg la ci ci ci bi. Mm-hmm. nga xam ne téew la nga xam ne loxo bële ci ginnaaw loxo gauche bële. mën naa fiile poqataan bi daw tëbb daw buur ñaar tànk yi. loolu mën naa nekk. loolu ci biir bëre bi la ñu dem. ay ci ñu dem ñu jàppante ñoom ñaar ba léegi Franc génn. waaw Franc génn mais fii tam ba tey taxawal mm-hmm. voilà gis nga. waaw Serigne yooru na pour song mais lii du song dafa yooru. Mm-hmm, song bi baaxul song dangay ngay mm-hmm. déplacer de gauche à droite déplacer góorgóorlu ba waa ji gis tànk yi ni mu taxawee nga daw paqueté. waaye dafa yooru pour jàppanteeg moom rek moo tax waa ji góolu na ko daw téye ko waaw. ñu dem. ay ñu dem. ba tey gis nga fii tam fii tam xoolal fii Serigne Ndiaye amoon na xoolal gis fii. waaw gis nga ni mu téye ci ci poignet bi nii. waaw am gis nga mais taxawaay bi moo baaxul taxawaay bi. Mhm. dafa doon jiital tànk bi mu mëne. nga xam day fël kudd bi rek jaar ci pox jaar ci kii bi. jaar day fël ci kudd jaar ci flanc bi dem. Mhm. waaw mais du ko mën parce que nii mu taxawee moo baaxul. Mhm. waaw mu taxawee nii fii ne bu feloon nii du man dem gis nga mais am na kudd bi fii am na poignet am na fa kudd bi. léegi mën na ko dindi loxo bi daw bëtt ko mais bu koy bëtt du mën a dem parce que ni mu taxawee moo baaxul ñu dem. ayca ñu dem. gis nga jàppante nañ ba tey. waaw ñu ngi am jàppante rek ñoom ñaar waay gis toujours lii lépp ay naxaate la nag. Uh-huh. lii lépp fi tam Franc mu ngi jot seet nu mu jéem a naxaate ba. Mm-hmm. ay naxaate la ku ne yaa ngi jéem a nax sa morom. Mm-hmm. waaw. ñoom ñaar a ngi dem ñu ngi dem ayca ñu ngi dem Leewtoo gis nga tey moo Serigne gis nga ni ma la waxoon. Mm-hmm. Serigne Ndiaye toujours gis nga tànk bii amul doole. bële da koo lem. fii tam ba tey gis nga fii hmm. gis nga kii xam nga tànk bi xaw na leen mu tax tuuti hmm. mais ba tey hmm. taxawaay bi des na mais kii tam taxawaay bi baaxul parce xool tànk bi waru waru ko lem nii mu tàllal nii tànk bële daf ko lem ba kon bii rek am doole mais bii amul doole mooy li ma la waxoon foofu ñëw nga waaw ñu dem ni mu jengee ni mu ni mu xaw a jengee ñëw wuy si. waaw waaw uh, maanaam maanaam dafa wéeru ci tànk bi ci kanam quoi. ay xam nga wéeru tànk bi ci kanam sa doole day sa doole. benn tànk benn doole la ñoom ñaar ñu ngi ba tey. waaw ñu ngi damante ba loolu rek waaw. Mm-hmm. yii yëpp ay wuti buntu la rek yii yëpp ba tey bëre bi ñëwagul. Mm-hmm. waaw. ñuy dem ba tey ñoom ñaar parce que bëre déplacement moo koy jox déplacement de gauche à droite daw paqueté. Mm-hmm. jàpp tànk wañ. jàpp tànk ngooli mbër boo mënta jàpp tànk toujours sa bër day des mbër da ngay mën a jàpp tànk uh-huh. waaw tànk dañ koy jàng nu ñu koy jàppee wala bu ñu jàppee sa tànk noo ciy génne loolu am njàng la. la. gis nga loolu bis bu ñu yàlla mayoon tapis ñu toog di demoon caméra bi nga ànd ak ci xale yi kenn kàkku wala Adama ak ñu mel noonu. Mm. am tapis. Mm. yàlla may ñu wér. gu ñu mm. mën a solo bu taxaw dañ leen ñi jàppee tànk ak bu jàppee sa nan nga ciy génnee. ak boo bëggee jàpp tànk nan ngay jàppee waatal ma tuuti sëñ Bass waaw ak boo jàppee <laughs> tànk nan nga ki loolu am njàng la te booy ci ma gis yow gisuma ci kenn ko xam ne jàppee tànk wala bu ñu jàppee noo ciy génnee ba tey gisuma ko tellement waaw père soit waaw euh, xoolal fii bëre bi ñoom ñaar Serigne Ndiaye am na geste bu mu def waaw nañ dem léegi nañ dem per xool ko ay ca sëñ Bass waaw waaw gis nga Serigne Ndiaye tibb na mais xam nga mhm. ñu dem voilà xam nga Serigne Ndiaye di tax xam nga fii loxo fii jàpp bi baax na waaw mais da koo sol waaw gis nga fii euh, Franc loxo mhm. mi ngi ci biir pokkataan bi mhm. xam nga moom téye na fii waaw léegi loxoom bële rek la mën a liggéeyee loxo loxo bi ci loxo kon Serigne Ndiaye loxo càmm. Serigne Ndiaye bii ko kii que kéem bi droite bi jàpp na. waaw mais léegi gauche ba rek la mën a liggéeyee. dëgg la te fii ne fii pour mu jaar ci bunt bi xam tax muy jafe. Mhm. parce que kii da koo sol. dëgg la. la maanaam loxo bi mu ngi ci mhm. poktaan mi. Mhm. léegi nag day fexe nag ay ay ay manière am lay def mooy moo xam ni muy toje bopp ji na xam fexe ba loxo bii yi génn. dëgg la mu bët waaye nag bopp ba nag warul ne ca kaw. bopp bi dafa war ne ci suuf. moom moom Franc wala moom Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye waaw dafa fexe ba waa ji da ko féete suuf waaw mais da waroon fexe moom it ba fexe parce bu bopp bi neewul ci suuf du gis li muy def dëgg la ñu dem ay ca ñu dem ñoom ñaar téye bi baax na téye Ndiaye téye na waaw rasu na gis nga léegi bàyyi na ngemb la waaw voilà ba léegi tey gis nga xam naa loxo ba li téye na moom voilà loxo voilà loxo ba ca ginnaaw gos ba téye na xam naa ne gis nga xool voilà gis nga jéeg bii nag xolo uh-huh. gis nga moo tax li ma lay wax toujours fii téel fii i njàngat mu réy ngi fi yow bu jëm ay ca père nga njàngat mooy uh-huh. primo waxoon naa ci comme yële analyse dëgg la foo ngeen di bàyyi xel ci yi ma wax yi passé dëgg la kaw rek waxoon naa la ci cri de ba muy bëre ak rëg-rëg rëg-rëg la ko gën a bopp ba génn ci kaw du yoon bopp warut génn bopp ba génne ca kaw na le mhm. dégg nga koo xam surtout koo xam ne moo la sut moo la sut dégg nga génne sa bopp ci kawam mhm. mu siggi taw nga yëkkamtiku mhm. léegi mu siggi fii ne nii Serigne Ndiaye am na mm. taf bi. waaw xam nga fi ne nii bu continuer mën naa neexle waaye ku wërta daan. day tax xam nga waxoon naa la fi ne la. Mm. bëre ñaar a ko yor. dëgg la riñaan ak rasu. riñaan ak rasu dëgg la waaw ah, riñaan ak rasu. yàgg nga ma ko wax. yàgg naa dama ne ku ko mënu ci bëre mënoo bëre man maa wax loolu kay mm. yéen ñii seetaan dama ne kenn du ma dindi te parce que li ma la maa la gis nga fii tey jii. Franc bu fekkoon ne rasuka la du daanu. du daanu moom Franc. waaw parce xoolal. xoola ñaar tànk yi ni mu dende gis nga ñaar hmm. tànk yi gis nga hmm. xam nga bëri da koo samp ne xam nga bii tànk rek taxaw hmm. bii da koo samp nii dëgg la dëgg la wala fen la dëgg la xam nga bii da koo teg nii benn tànk mën na ko taxawee du am doole léegi nag fii ne li mu waroon def nii loxoom bii lay dugal fii fel poqate fel mu deñ fel fel loxo Serigne Ndiaye fel loxo Serigne Ndiaye bi pour bëggee rëcc li koy rëcc comme crochet na mbagg bi fii léegi xam nga loxo bii loxoom loxoom gaucham bii. waaw dégg nga moom lay dugal fii. Hmm. fël loxo bi. mais père Franc bu felee foofu deuxième pied bi day neex de. la waaw day bu nga. Franc da koy deuxième pied. waaw waaw bu fekk na na fekk mu mëne ko nag. waaw ah, bu fekkee mu mëne mboot bi. laay bu bu fe bu lay def côté ba lay dugg fi teg ci wér rek tëgg ko mboot ñu ànd jóg. bu doon ba ma cay toll bu ah, waaye lu ngay wax day fekk nga mën koo def. waaw dëgg la gis nga tey jii bu fekkoon ne Franc mboot kat la. Uh-huh. bi mu tafee tànk bi nii. Uh-huh. loxoom bi lay dugal fël ko rek tànk ba li ci ginnaaw nag mooy ñëw. Uh-huh. rotation lay def mais du ko mboote côté bii waaw déedéet parce que bële mooy ñëw. mooy dugg daal di fël loxo bi. Mhm. Ah, waaw laay waroon nañu am tàppi rek. bi laay peer. ne màgget naa. <laughs> yu bari mënatuma ko. waaye dama ne boo tan bu tam tey ñu. laay peer mooy xam naa la wan nan lañ ko doon def. laay peer rétention dafay tëgg mboot ci biir bi lay toog. mais gis nga fi mu ne tii. Uh-huh. même bu mën am affaire boobu franc man bu mën ta am loolu. Ah. loxo bi lay fël rek ràcc ci tànk bi. tànk bi uh-huh. lay fël rek ko. dëgg la na teg tànk bële ba pare tànk bi dafa tegu mu fël loxo bi tàcc loolu Franck Senghor lay doon dëgg la taf na da nga naan nii rek fël loxo bi nii buñ tafee sa loxo nee nii loxo bi loxo bi ngay fël rek ràcc tànk bi taxaw waaye doo indi bii mhm. comprendre nga mhm. su saa yi ñu la godde bopp génn nga waa ji daw na yéeg la nga def nii waaw ah yow tam bu bu bi da ngay daanu da parce que ah tax xoolal tànk bi ci kanam da nga mhm. loxo bi ràcc bii dëgg la xoolal fël loxo bi ràcc bii gis nga ko daal di jekkaat fii ne daf jekkoon na. Mhm. bëri bi jeexoon na. ayca ñu dem ñu xool. Ah, Serigne Ndiaye moom balaa gis nga da koy song rek dawale ko. gis nga dawale boobu nag. Uh-huh. xam nga Serigne Ndiaye ko suttaay. waaw waaw ba mm-hmm. pare mu génne boppam ca kaw encore boole ci. Mm-hmm. ba pare ba tax bi bu ja fi mu ko fi mu ko plaqué daw ak moom. da doon raaj tànk bi ci kanam la doon ràcc rek. fël loxo bi. Mm-hmm. dëgg la tànk loxo bi fi mu dugal fii fii la koy dugal rek. fël ko. mu daal di rëcc. rek mu def rotation. Uh-huh. bu la neexee deuxième P wala boo fëlee rotation ngay def rek ne nii. rek mu mu dem romb la parce que dafa dafay daw yëg ci sa kaw. dëgg la lii bëri bu rëy ngi fii. mais père combat bu combat bu technique nii. waaw ah, waaw am na am na xarañte ah. bu ci mais euh, Franc mi nag ci li ko ci doon génne. Ah. technique dëgg ko ci doon génne parce que action bi mu maye. du woon action ba nangu lool voilà mm. gis nga taf bi mu taf nii bopp bi si bopp bi mu génn ci bopp du yoon benn ñaareel ba tànk mbëri da ko war a teg ba pare fël loxo bii mm-hmm. parce que nit nee naa la nit loxo yàgg naa la wax nit ñaari loxo la ñaari loxo la dëgg la mais jii li su ma jàppee benn bii tey sa loxo bii mm. yow bii rek nga war a bàyyi xel parce que moom jàpp na ba pare. waaw mhm. su ma jàppee bii. Mhm. bii rek nga war a bàyyi xel. dëgg la wala fen la. parce que bii moo la mën a loolu moo la mën def lépp. waaw bii fu ñëw rek nga. waaw bi mu nee téqee ne gis nga. voilà mu ko noonu rek la doon def jeex na waaye boo indee bii taf ci taf ci morom ma. Mhm. waaw bii nga taf ci morom ma bële. parce que bii la indi. ma yóotu bii nga taf bi ci da ngay daanu. da ngay daanu parce que amatoo équilibre moo tax xoolal fléchir jambe yi fel loxo bi tóor mu jeex tàkk waa ji daw na yéeg la crochet bi crochet sa jàpp sama bi jàpp na ba pare daw na di la plaqué daw da la yéeg bul laal tànk bi ci kanam xam-xam laa leen jox de booy bul laal tànk bi ci kanam boo indee bii rek daanu nga tey ndaanaan yi ndaanaan yi bërikat yi kay tey bu ñu bu ko ci ma ci seetaan tey di nga xam ne li peel bi daay wax boo indee bii daanu nga mhm. doo indi bii bi ne ci kanam bu fekkee droite bi la mhm. bu fekkee droite bi la bul indi droite bi nooy def nii rek chaque jour bi ci ah, ginnaaw chaque bi ci ginnaaw ngay di parce que boobu moo lay may appui. Mhm. boobu mooy pied d'appui bi. nga fël loxo bi daal tuur leen mu dem. daa war nga deuxième pied comme ni nga ko waxee sànq. deuxième pied boobu. loolu nag day fekk am ñu ko mënee. Mhm. man njool ah. ah, fu ma téewoon sa loxo deuxième pied la. ah mu ngoog. dinaa ko ci mosal. ah <laughs> waaye sa combat bi kàggu nag xaw ma kañ la. kàggu daan naa ko. ah démb lañ géej ba daan ko bu dugal ko ci machine bi bas si ko. Ah. ah bas da ko da koy ah ñoo ñoo bokk dëkk njaare ah, moo tax waaye nag sama ñaari doom lañu ah moo tax mu jàppale ko waaye moom sax bas dinaa ko ci teg déet déet déet am na tamit keneen ku ne états-unis kooku tamit dinaa ko ci teg Ah. Ah, waaw waaw <laughs> ah, kon nag baax na. waaw ah yaa ngi bëgg doon mbër nag de. ah bon waxee de bu dee noonu nga ko mënee. yaa ngi doon mbër de. man daal bëri bi li laa ci gis ma di leen encouragé ñoom ñaar ñëpp nag. Euh, di wane ne Serigne Ndiaye de mu ngi ci bonne voie. Hmm. nekk na ci écrit bu baax. écrit Fass ñoom Moustapha Gueye maa ngi koy nuyu de passage. mooy hmm. président écrit président les sages de la lutte sénégalaise. Hmm. di ko ñaanal gudd fan ak wér parce que mu ngi doxal liggéey bu rafet. wax dëgg yàlla liggéey bu rafet bu mu fëgg ñu ubbil ñu ko. ñu ngay sant Moustapha di la gërëm jël nuyoo bi di ko jox Pape Konaté nga joxal ñu ko ñëpp nag mu nuyu waa saas ñëpp nag mm-hmm. di ñaan ci yàlla saas yàlla na ko yàlla yóbbu ca kanam a kanam a kanam ba suñuy doom ak suñuy sët di jëriñoo saas waaw parce xale yu rafet la gis nañu ministre bi tam mu ngi jàpp mm-hmm. wax dëgg yàlla jël na ñeenti waa saas dugal ci comité directeur ba bari jël président bi muy Moustapha boole ko ci ci kii bi nu mu euh, ci groupe ñi nga xam ne ñooy ñooy fa ñuy nasee ka noccee Moustapha fa la bokk te Moustapha bu fa nekkee làmb rek la fa nekkal ah moom la fa war a nekkal te fa la koy nekkal sax parce que bu fa nekkul woon làmb ñun ñooy daal ci kawam parce que ñun tamit lu doxal lamb rek la ñuy wut. démb gis naa ko arène ah, ci seen réunion waaw. waaw parce que bu jot dañuy def réunion foofu. ci lay bokk waxtaan moom it wax dëgg yàlla mu ngi doxal devoiram daal. kon yàlla na ko yàlla dooleel dooleel ñun ñëpp. te yàlla may ñu jàmm defal ñu sutura. xale yi tam ma di encourage ñu góorgóorlu parce que kii Serigne Ndiaye am avenir la ci lamb ji. Franc nee naa la lamb ji yii. ñoo fi remplacé ñoom Modou Mhm. parce que ànd ak kóol dul yokk xam-xam da wàññi. Mhm. parce que du la yokk dara. Mhm. lam la lay wutal ay noonu rek lay wutal. boo daanoo ñu ne diw mii la mii rek diwal tojal ak diw la bàyyi leen loolu. te jàng ku leen yokkal xam-xam. te per ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk am nga ci nekk nga ci bopp bu baax parce que boo xoolee. Serigne Ndiaye face gi mu nekk. waaw ñu ko ëmb ñëpp macha allah. ay borom xam-xam lañ. waaw bu dégloo. waaw dégg. Euh, jaar fi ñu ko jaarloo. mën naa doon champion. te xam-xam it boo ko xoolee ah, parcelle gi fi mu nekk tamit man dafa mm-hmm. yokk lu bari. Mm-hmm. dégg li ma la ak sax ñi muy gis ci télé bi. ak kenn nga gis xam nga ni daana tàcc prise. Mm-hmm. gis tey ma ne ah Adama bi ma daal gis naa booy booy diw daal bëri bëri boo xam ne bii daal bëri bi man ne prison boobu jaaxal na ma. fexe ba jàng ko. Mm-hmm. dem géej di ko jàng di ci daan di ci daan ba xëy mën ko ba xëy dàq ko sax dëgg la loolu am na da nga daan xool benn mbër bëri bëri bu rafet bëri jékku-jékku bu rafet nga ni kii di ni mu mën lii kii daal dinaa fexe ba prison bi kii ni muy deux pieds kii ni muy mboote wala kii ni muy dëbbe sol di lalli mm-hmm. wala kii ni muy caxabale wala kii ni muy gulërbee mm-hmm. wala kii ni muy noojoo wala kii genre bëri yooyu yëpp tey ji mbër mi da ko war a bari ci boppam ba ba maanaam suñ la laalee fekk mu ngi mel ni nga doon nelaw di jayeexu nii ngay nelaw di jaaxoo jékki-jékki di fëggal nga di bëri yow nga xam ne loolu mooy mbër suñ la laa rek nga di bëri rek fu la fuñ la fekk rek nga def action dëgg la mbër nag feeg mën tolloogul foo xam ne fu ñu toll mu def action mm. bëri mbaa ngay des dëgg ko jekkoo rek mu xam ne war a génne mm. te bu jekkee xam ne mu la war a def waaye ko jekkee tamit mu xam ne mu cey génne sa mm. mbër des na de mm-hmm. parce que fi ngay daanoo fi ngay daanoo fi ngay daane ak fi ngay daanoo kenn du ko xam tey mën ngaa ñëw ne tey nga toj làmb ji ñëw ñu daan la tey mën ngaa ñëw ne tey dañ lay daan nga ñëw daan bari na ci mbër yi nag bari na ci mbër yi mag yi fi nekk mm. yépp tay mu dee mu ah. génn ci waaw ah. bari na ci mbër ah. parce que loolu ba tey seen xam-xam a des mm-hmm. waaw parce que boo ànd ak nit da ngay ànd ku la xam dara yokk xam-xam mm-hmm. suñ la daanee sax mu dindi galaaj yi teg fële mm-hmm. ne nag booy kaay ma la daan nañ la mais lii moo la daan bul defati lii waxoon naa la ci entraînement moytu lii parce que lii boo ko defee nii lii la lay mujj jural loolu mooy yokk xam-xam maître bi lay jàngal sax bu la defee devoir nga devoir bi nga def da koy corriger en dëgg la soo demee kër gi nga jël ko en propre. Mhm. bis boo ca tolluwaatee nga xam ne fii kat bi ma fi tolloo kat maître bi dafa ne woon doo juumoon naa fi. Mhm. fe parce fii kat naa ma fi def lii loolooy xam-xam. Mhm. mais la nga juume woon tey di ko juume suba te euh, rectifié ko doo ci daj mukk. dëgg la yàlla na yàlla dolli suturaal mujj yàlla na yàlla may mujj rafet gudd fan gu ak wér ak wérle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 ay Fass Ndiaye nu roowu maag ñoom cuuna rëy ma juub waa na roy maa ko baaxi ñii ma yor si